Euh, ni ñu ko tàmbalee fan du ñu joxee rapport bi président de la république liggéey bi dafa am ñoo xam ne ñoom lañ ko digaale muy euh, organisation travailleurs yi ak ñi nga xare xam ne ñoo bërëb liggéeykaay yi muy patronat bi ak gouvernement bi donc gouvernement bi jébbal nañ leen seen rapport léegi travailleurs yi euh, patronat bi aussi jox nañ leen seen rapport travailleurs aussi dafa am ñaari groupe syndicat yi nga xam ne ñoo gën a représentatif ñoo xam ne tey cinq ñoo nekk au conseil du dialogue social dox nañ leen seen rapport tey ñu daal di dajale ñi nga xam ne bi ñuy mujjatee def élection yi jotuñu woon am 10 pour cent yi nga xam ne moom leen laaj pour ñu siéger au conseil xam ngeen saa su ne dañuy naan ñoom dañoo bëgg un dialogue inclusif maanaam nañ ci bokk bokk nañ ci gaa waaye organisation texte bi moo tax mu mënuñu leen boole ci négociation yi mais bi président joxe ndigal bi ñu paree joxe rapport bi ba mu jàngat recommandation yi nga xam ne def nañ ko ci mu daal di ñu sas dañu fii ak fukki fan ak juróom ci weer bi ñu ne man ak euh, ministre du travail monsieur Samba si ma koy remercier au passage nañu euh, ko jox benn plan national boo xam ne day renforcer dialogue social bi Sénégal loolu mu nekk wax dëgg option bu rëy parce que dialogue social dem nañ ba xam ne dafa transversal dafa ëmb secteur yépp faw ñu jox ko gëdd bi nga xam ne moom la soxla pour mën a efficace ci réew mi donc ci loolu liggéey la ñu ñu daal di leen dajale tey ñi nga xam ne ils sont moins représentatifs jox leen rapport bi ba pare ubbi waxtaan pour recueillir seen bëbët euh, li président wax naka lañ ko gisee jël seen avis jël seen recommandation pour ñu xam ni si lañ bokk parce que élection dañ koy def déjà déwén dina am élection élection ko amuloon 10 pour cent yi passé bii mën nga am beneen taxawaay donc foog ñu boole leen ak naka lañ leen di boolee ñoom duñu bokk peut-être ci négociation mais ci waxtaan dinañ waxtaan ak ñoom ñu rafetlu ko gis ngeen ni ñuy ñëwee ñoom ñëpp wax dëgg ñun tamit li ñu wax ministre bi mooy ñun ñoo yore dialogue ministère législation la yor donc ministère bi day yem ci ñeent ñooñu nekk foofu mais ñun mën nañu yaatal donc looloo tax ñu yaatal waxtaan bi euh, bu si kanamee dinañ dugal waxtaan ci plan bi ñoom tamit ñu wax lan la ñu namm pour li nga xam ne mooy dëgëral dialogue social Sénégal. ci ñeental ndaje bi ana lan lañ ciy xaar. ñun liñ si xaar mooy ñu xam ñoom seen ay bëbët parce que dafa am solo xam nga plan buñ koy def da ngay jël en compte surtout nationale donc ñoom déjà xëy na bokkuñu ci kuréel yi nga xam ne day négocier mais am nañ luñu xaar ci dialogue social te bés bu ne di leen di dégg sax ñuy wax ne ñun euh, faw ñu boole ñu ci waxtaan yi.

Si suñuy suñuy compte rendu dinañ ko naan ah, nga 10 pour cent lii la ñu ñu parce que la finalité est la grève La La finalité bi mooy c'est-à-dire que le secteur clé yi président tudd tout. éducation santé agriculture nous devons ñu stabiliser les relations professionnelles. C'est l'objectif final parce que syndicat il faut ñu xam ne am na dañu am secteur yu ñu am doole di nga syndicat bu am par exemple damay wax nii rek ci mine wala pétrole mais boo demee beneen secteur doo ko fa fekk donc euh, boo bëggee rek jàpp ñi nga am 10 pour cent am na amuñu 10 pour cent secteur boo xam ne am nañ fa doole bu tax ne boo leen boolewul si waxtaan bi bés bu ñu taxawee day metti waaw defe naa li taxoon ñu ñëpp Sénégal xam nañ bu ñu demee nag ba jàngat ne euh, dañuy reprendre manifestation man sax jéem ma sax xam ban motif pour lan la mais man li ma comme damay dox jàmm man la ci ci jàmm rek laa mën a woon nit ñi 23 juin ñëpp xam nañ ne amul lu fi amoon waaye est-ce que M2D moo ko moom loolu tamit dëgg la de est-ce que ñoom ñoo moom 23 juin.

parce que ñun toujours dañuy xëy di xool li xam am ci réew mi ak li am bitim réew té bo xolé dëkk yu soré wul dara barki dé mo Ndiaye nit ñi nelawuñu kon nit ñi dañuy woote jamm man dal fofu la ko teg. merci beaucoup. Mm.